ginnaaw bi ñu waxee ne dañu ko testé mu daal di positif ci Covid bi moom Bamba Fall di meeru Medina. te laasa xamal ñu ko ne lu toll ci fukki fan ñu ngi ko interné ca l'hôpital principal bu ndakaaru waaye kii di Bamba Fall daal dinay génn def ab vidéo ne du tontu benn yoon ci mbir moomu limuy def rekk mooy liggéey. man duma tontu revue de presse mais revue de pays lay tontu. wallaahi. <laughs> man duma tontu revue de presse mais revue de pays lay tontu. wallaahi. man duma tontu revue de presse mais revue de pays lay tontu. wallaahi. <laughs>